laaj yi kon am na ci bu aju ci jullit bu diggu doomu lan mooy ay meloom ay meloom mooy mu digg doomu rek mu diggu doomu ci li muy def lu ne mu diggu doomu ci li muy def li muy def lu ne xam nga dañuy wax ne mbir mu mën di doon rek bu digg doomuwul rek mën naa soppi ku doon safaan buñu buñu wax tabe tabe dig doomu moy tax mu don tabe waye bu waccion mën wacc ba ag ci tuddu nay waye bu yéegoon itam ba ag ci wax pasar lagi yi ñu waxoon wala yaq kon bala mbir am solo rek day dig doomu amna sax hadis bo xamne ne du saxal waye lañuy wax mooy mbir yi yëpp ca gën mooy ya ca diggu doomu xayrul aw awsatuha donte ñu ñu segg xadis saxaluñ ko sax waaye xëy na maanaam moom mu wér na ndax li yoon ci ci diggu doomu yëpp moom la fi mooy loola mooy moo gën kon kii diggu doomu rek mooy ku diggu doomu ci léppam du ëppal du yéesal du yéesal mooy du sàggan waaye du ëppalit du weesu fi mu war a yem moo xam ci li ñuy tuddee jaamu yàlla yi la moo xam ci jëflanteem ak nit ñi la muy jëflante yi dox digganteem ak nit ñi du ci ne <coughs> da ciy diggu doomu du ci ëppal bu dee jaamu yàlla yi misaal yi ñu joxe woon di di di di di naafi la guddi mu tegoo ci loo xam dana mën a wéy ndax yonent bi sax loolu la wax dafa wax ne li gën mooy li li gën a sax li gën mooy li gën a sax li gën a sax nag mooy li nit ki attan ci tegoo ma attan moom la ñuy yaakaar lam def mën a sax waaye ku tegoo lu mu attanu sax ga duñ ko yaakaar li ci ëpp day dema dema dem rek bu mujj bàyyi wala mu dellu ginnaaw kon euh, nit ki lu muy def lu ne rek ñu digg doomu ci moo xam ci jaamu yàlla yi la li ñuy tudde jaamu yàlla sax laay wax ndax jaamu yàlla moom gën naa moo xam li ñuy tuddee jëflante yi la ndax lépp itam day duggaat day duggaat jaamu yàlla yi rek mais nit ki daal lépp lu def loo xam ne koy defee na yàlla bëggee rek jaamu yàlla la te jublu ca jublu ca def lu gënul xam lu lu dox digganteem ak yàlla rek la moo xam lu dox digganteem ak nit ñi lu ci ne mu digg doomu ni muy jëflanteeg nit ñi mu digg doomu ca ni muy tegoo ci digganteem ak yàlla rek itam mu dig doomu ca bañ a gàttañ mooy bañ a sàggan bañ a yéesal waaye bañ a ëppal itam ëppal gi bu dee ci li muy def digganteem ak yàlla moom mën naa tax ba du ko attanis ku bëgg a dëkkee woor bis yépp nga di ko woor loolu nit du ko attan day mujj dem rek ba taxaw moo tax xadis bi ñu doon wax ci ginnaaw bi yonente bi di wax ne diine ji dafa dëgër nangeen ci duggee ndànk ak tey wax na ca bane ne ki nga xam ne dafa tegoo lu mënut day dem ba bàyyi rek te bu bàyyee rek mooy kon la bëggoon amatu ko la bëggoon amatu ko فإن المنبت لا أرضا قطع ولا دهرا أبقى loolu moo ko mot kon dal melow ki diggu doomu mooy di diggu doomu ci leppam rek ci leppam moy bañ di eppal bañ di yeesal bañ di sàggan bañ di wayasu fi mu war a ci lu man di don rek ginnaaw lu man di don la nak lu man di man di man di man di luñ leen ndax léppam la dundam gépp la dund gépp rek mu ci ci diggu doom def leen jëflanteem ak nit ñi ak li ngi dox digganteem ak yàlla rek def leen jëflanteem ak bindeef fi sax laay wax bu nit ñi rek waaye def leen jëflanteem ak bindeef fi ak itam li dox digganteem ak yàlla rek foog naa loolu manees na ko tënk ci laaj boobu sa sëñ Bal. waaw tam beneen laaj bi laaj laaj moom islam ñu tax ñu ne yow tey waaw eh, taasub moom mooy parparlo gi ñu waxoon moom dañ lislaam da koo bañ ci lu mënti doon parparlo la lislaam di bañ xam nga nit ñi féete yiñ mën a am bari na ñi bokk ñi bokk gisiin ci diine bu dee ci wàllu fiq dañ koy tudde ay mazahib mazahib xam nañ leen mazahib yi yi sax yi fi sax ba nëgëni ci ahlu sunna mooy ñeent yiñ xam kon dañ naan waa mazhab bu ne dañoo dañoo péete ci wàllu fiqh ñu nekk ci mazhab Malik ñooy suñ péete ña nekk mazhab Shafi ñoom itam ña ca nekk ñooy seen péete ci wàllu fiqh bu dee ci wàllu aqida moom it mu am ay mazahib bu dee aqida ci ba dañ koy tudde moom ay firaq lu mel ne ashariya mooy suñ péete ci wàllu aqida ñeneen ci seen wàllu àqida am nañ ci yeneen bayte ñoom it noonu lay jàll ci leneen ci wàllu politique politique nit ñi ci ami péete bu dee ñu nekk ci parti ñu bokk parti ñu ne dañoo bokk péete ci wàllu boobu ak ci yeneen wàll wàll yu mën doon rek nit ñi daal lépp loo xam ne rek bokk nañ ci aw gisiin mën nañoo ànd di doxal seen gisiin woowee ñu ne kon dañ caa bokk péete waaye lañ cee bañ nag di ko tere mooy weesu foofa nag parce que gis nga ëppal la ba tey ëppal gi mooy nga àgg nag ci parparloo parparloo te mooy ñi nga féeteel nga ne dëgg gépp mi ngi ci ñoom dëgg gépp mi ngi ci ñoom buñ naan dëgg gépp nag mooy saa bu ñu wut ak ñeneen saa bu ñu wut ak ñeneen rek ñoo am dëgg ku wuuteeg ñoom itam rek amul dëgg nga xam ne boobu loolu amatul gëstu moom dangaa xas dangaa xas wax ne rek dëgg gépp ñoo ko yore ku wuuteeg ñoom itam mënut am dëgg amul dëgg boobaa nekkatoo ko di xool fuñ ko tege fuñ ko tegul loolu mooy par parloo li nga am lépp itam nga yamale ko ci ñoom loolu dañ koy tere ci wàllu bu mën doon moom moo xam ci euh, wàllu diine la wala ci wàllu xalaat wala ci wàllu politique wala ci wàllu bu man doon rek dañ ko cee dañuy tere parparloo kon lislaam dafa tere parparloom ci wàll yëpp waaye li am sol nag moo ñu bañ koo jaawale ak péete yemul péete bañuñ ko fii ak ak gul ci parparloo fii ak jurul parparloo bu ko juree lam jur lañ bañ waaye jëmi péete ci boppam moom du luñ bañ waaye parparloo bi lañ bañ. Hmm. Rasul Fikri Al-Wasatiyya loolu de ab baat la boobu moom it xëy bi mu sosoo yàggewul noonu lool mooy xam nga jëmmi jamono dafa am ñu jóge feneen ca seeni réew ñëw ci réewi jullit ñi songu leen songu leen ci wàllu doole song leen ci doole not leen ci doole loolu mooy alxasul askari hmm? ñu dem ba jëmmi jamoon nag àddinay dox àddinay dox àddinay dox bañ mujj na léegi nit ñi daal ñi leen notoon ci doole dañ leen war a bàyyiwaat ñu moom seen bopp ba ñu ne def nañ ko waaye teewul ñu ñëwaat nag songaat leen ci wàllu xel ak xalaat mooy niñ leen noté woon ci doole ñu dem ba jamono nangootul loolu ñu fexe ne kon nañ leen not ci xel ak xalaat muy alxasul fikri kon di di mujj ñëw loolu lay wax ne nan lay gàllankoore wala nan lay xeexe wasatiya bi war am ci jullit ñi wasatiya xam nga <coughs> niñ ko waxee mooy diggu doomu dafa am lu ko féete suuf ak lu ko féete kaw bu dee alxasu fikri gi ñuy gën di wax moom mooy congu gi jóge ci tubaab yi ñu di ko congu ñu dul ñoom rek ñu dul ñoom du rek jullit du waaye ñu dul ñoom rek ndax dañoo bëgg àddina sépp di xalaata ni ñuy xalaata ñoom àddina sépp di rafetal li ñuy rafetal ñoom àddina sépp di ñaawlu li ñuy ñaawlu ñoom loolu ñuy jéem a wëlbatee nit ñi nag bañ fekk si leen loolu la ñuy tuddee alxasul fikri loolu nag bu dee wasatiya moom lam cay jeexital mooy dara day jéem a wàcce jullit ñi wàcce leen wàcce waaye du leen jëmi kanam du kaw moom du leen yóbbi kon ak ëppal ëppal gi nag mën naa nekk sax jeexit mën na cee am ci jeexit amna ci sax deug deug deug deug sax eppal gi am ci julit ni ba ak ci irhab biñ doon wax amna ci lol jeexit la jo xamne tongu gi tubaab yi tongu ñeneen ni ci walu xel ak xalaat moko jur bokku na ci bokku na ci xam lolo ko jur mo am na ñoo xam ne irhab bi leen ko jural moy dañu gis ni tuba bi di songé seeni rew ci walu xel ak xalaat ba fëkk seeni njiit ba seeni njiit daanaka déggal leen mu naqar leen ñoom ñu doon ay jullit dëkk ci réew yooyu mu naqar leen te mënul ci dara ñu jóg di def yooyu jóg di def yooyu ngir naqaral ngir naqaral tubaab yi ak naqaral seen njiit yooyu nga xam dañoo jàppan dañoo déggal tubaab yi kon loolu jeexit la sax yoo xam ne yóbbee na ñeen ñi sax xulu waaye jubluwuñ ko moom ñoom jubluwuñ ko ñoom jubluwuñ moom euh, jubluwuñ wasatu yëpp jullit ñi jëm kaw ba àgg ci xulu ndax xulu moom du seen njëriñ ñoom waaye lañ cay gën a jublu moom mooy ñu wàcc ba sàggan ba sàggan càggante gi jullit ñu sàggan xam nga am na njiitu réew moom Sénégal Senghor buñ ko bañee tudd buñ wax nañ ne waxoon na njiitul am na njiit lu mu ko waxoon ci seen njiit yi ñoom njiit yi Babacar Dieng ne ko mënumaa def Sénégal ñuy ay chrétien mënuma ko ay jullit lañ ba noppi mënuma ci dara xam naa ne moom ci génn leen ci lislaam moom bu wér ñu génn moom taxaw fële nekk ci leneen moom mënuma ko waaye nag mën naa fexe ba def leen jullit yu sàggan jullit yu sàggan mauvais mauvais musulman loolu moom ñi songu ñeneen ñi waxuma jullit ñi rek waaye tubaab yi song ñeneen ñi moom danañ bëgg moom lañ nekkoon ñu bàyyi ko woyofal ko sàggane ko muy wasatee bi ñu amoon ci lislaam ñu wàcc wàcc bu ñu wàccee nag ci càggante lañ jëm càggante mooy doo defati la la war woyofal diine woyofal lépp daal loolu moom bokk na ci seeni bëgg-bëgg ndax ci ngay bëgg a soppi bëgg mu fekk si la bala mu laa mën a fekk si day bàyyi lam yoroon te balaa bàyyi lam yoroon nag da koy woyofal ba noppi da koy ñàkkal solo ba noppi da koy jàppe lu amul solo kon foofu danañ ko jéem moom danañ jéem jullit ñi woyofal lislaam ji ñu yor bu woyofee ba woyof rek ci lañ leen di mën a fekk si waaye teewul tam dana juraale yi nag ñeent ñi ëppal ci far ëppal ci mooy euh, yóbbee irhab bi nga xam ne mi ngi am te am na ci lool looloo ko jur am na ci lool looloo ko jur muy ñu gis seeni réew gis ni fa tubaab yi ame doole te neexu leen te mënuñ ci dara mu ne lañ cay man rek kon mooy leen naqaral def daal ay mbir yoo xam ne dana tax ba ñoom itam fu ñu toll di tiit fu ñu toll di ragal ñu ànd ak ñoom ci suñ ci sunu biir yitam fu ñu toll di tiit fu ñu toll di ragal dama dema ne ba ëppal nag bu mujj far xàjjaleetuñ kenn léegi di di di di yàqal ñëpp rek di yàqal ñépp loolu ëppal la goo xam ne ñu ngi juddoo ci doxiinu tubaab bi nga xam ne daa bëgg a nopp ñu dul ñoom bëgg leen a génn ca lañ nekk ñu fekk si leen ci seen gisiinu àddina di rafetal li ñuy rafetlu di ñaawlu li ñuy ñaaw laaj bi leer na yàq na kon laaj bi ci mujj rek mooy def ne xel xelil wasatiya tasfaru fi jënd bil wàcc waaw ndax wasatiya dana feeñ ci biirul wàldeen biirul wàldeen mooy mooy mooy déggal way jur déggal ay way jur déggal xëy na baat la rek waaye neexut a firi dëgg-dëgg biir moom wutul ko benn baat rek ci wolof yombul ndax doone déggal rek déggal leen rafetal jëmee ci ñoom daal moo tax moo tax ne waaw xam nga buñ naan déggal déggal ku déggalut moom dafa dafa wàcc mooy tasarruf tasarruf lu mooy daa dem ci cat li féete suuf ki ñàkk a déggal kam war a déggal moom daa dem cat li féete suuf kii déggal ku mu war a déggal ci lum ko war a dégg ci lum ko wër ta déggale kooka dafa dem ci cat la féete kaw mooy tasarruf mooy xuluwu kon moo xam waajur la moo xam keneen la ku mën di doon rek ku ñu war a déggal ku ne déggal ga dafa am fu mu yem buñ ko weesalee foofa rek mën naa dugg ci xulu mën naa dugg ci tatarus donte duñ ko ko wooye waaye ku ko def weesu na wasatiya biñ digle woon ku ko def weesu na wasatiya biñ digle woon mooy déggal ju rek déggal keneen yonente bi da koo tënk yàlla it da koo tënk yonente bi leeral da koo tënk ci lañ leen di déggale bañ a doon lu naqar yàlla dañ leen di déggale bañ a doon lu naqari yàlla kon ku ne day déggal ku mën di doon ba tax mu koy déggal ci lu naqari yàlla kooku génn na wasatiyee gi ñu ko digal ci wàllu googu moo xam way jur la moo xam keneen la way jur nag ginnaaw moo jiitu ñépp ci way jur la yàlla joxe misaal moom ci alquran ci law bi mu waxee ne digal naa nit muy rafetal jëme ci ay way juram waaye da caa teg nag ne buñ la bëggee yóbbee nag bokkaale bu leen topp bu leen ci topp kon mooy tënk na mooy bu leen topp kon ci lu neexul yàlla bu leen topp ci lu naqar yàlla bu leen topp ca loola waaye du tey la ca des nga ci nga leen cee topp وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. waaye mu teg ca wa saaxibuhuma fi dunya maarufa bu leen ya, topp ci loolu waaye nag du tey la ca des moom na nga wéy di ca ànd ak ñoom ci ak rafetal loolu wax ci alquran tudd ci ñaari way jur ñi nga ci ku ñu ci ñu bi gën xam le ne mbindeef mu mën di doon rek buñ koy déggal day fekk lañ koy déggale doon lu neex yàlla la taata li maxluqin fi maasiyati lxaaliq la taata li maxluqin fi maasiyati maasiyati lxaaliq mooy bu ci gën a gàtt am na yeneen yu ñëw yoo xam lépp day wane rek ne nit ki daal kii mu war a déggal war na koo déggal waaye ci kaw nag lam koy déggalee du doon ak mooy yàlla loolu mooy juróom ci ku dul waajur mi ngi ci kon ni ñu war a déggale waajur ni ñu war la rafetale jëme ci waajur moom itam nit mën na caa dem ba génn wasatiya gi ñu ko digal te mooy mu euh, topp ko ci lu mu ko wër toppe mu topp ci lu mu ko ki ko ñàkk a topp génn na wasatiya jëm ci suuf waaye ki ko toppee ci lu mu ko wër toppe itam génn na wasatiya moom jëm ca kaw mooy jëm ca ak ëppal sëñ Balla kon jërëjëf naa ne kon ci leer na lool waxtaan bi leer na sant bu baax dina ñaan ci moom dina guddal fan yi kii lool sàmm bu baax sàmm njaboot mën a liggéey bu barkeel ko defal ñu ñëpp tëdd man ñu ngi wax ne am beneen faaru ñu